te ci suba ba léegi yéen a fi taxaw di xaar lii nga xam ne moom la Sénégal gépp di xaar moom la waa bitim réew yëpp di xaar mooy ndax ay dafe comme tey dafa décidé woon ne day ñëw ci turu ki nga xam ne moo fi yebal di Ousmane Sonko ne ko comme léegi Sénat miy jiite élection yi di organiser élection yi nee na nan ma jox samay fis Ousmane Sonko ne ko demal nga déposer encore lettre bi ma la joxoon te la ko doon gantal bi yon yaakar na ni administration bi dina doxal li nga xam mom la yon wax kon loolu ñun bimu ko yëgee ñun wa LACOS moy leader allié du candidat Ousmane Sonko nga xam ne Maimouna Bousso mi ngi fi ak euh, ñeneen nga xam ne ñoo bokk plateforme bi yépp damaay baña lim di faté ñeneen ñi ñu ñew tay kon pour accompagner Ayib dafé and ak mom ci li nga xam ne la ñew pour téwal Ousmane Sonko comme ni ko candidat yëpp amé dañu ñu defee loolu nag ñu gis ni biñu yexé yegsee première jafe-jafe bi ñu seetlu mooy bi capitaine bi ñu fekk dañ dafa jot ay instruction yo xamné dañ ne ko nañ xaar bala ñuy xol ndax ay dafe day dugg wala du dugg biñu ñu ab diir lo toll ci fukki waxtu ak juroom ci lañu ñu ñëw daan ne ayib dafe na ñëw euh, bu ko défé ñu recevoir ko waaye buy dugg du àndaale ak huissier bi loolu première jafe-jafe bi constaté parce que huissier moom acteur de la justice la kenn amul droit ab huissier ñëw ci biir euh, administration ni day dugg ci kër wala day dugg ci benn bâtiment administratif ñu ne ko doo fi dugg kon huissier bi duggul ñu ko dafa xaar ay dafa ci buntu bi bu génné mu wax ko lim ko li nga am moom lañ ko wax mu doga def constant kok moy première jafe-jafe bi ay dafa génné nak lim wax leer na nee na le directeur des opérations électorales

léegi nag loolu ñun jàngat biñ ci war a am ñun sénégalais yi mooy président Macky Sall dafa décider ne Ousmane Sonko di candidat comme tous les autres candidats mu taxaw moom Macky sàll yoon ni mag Ousmane Sonko am na droit jël ay fiche de parrainage am pour dem parrainer ci comme ñëpp te lii ñuy teg Ousmane Sonko mos ñu koo teg benn sénégalais moom Macky Sall mu ne day taxaw jaay doole ne waa direction générale des élections bu leen jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am kon loolu li nga ciy jàngate mooy. ñoom dañ ne woon Ousmane Sonko dañ koo génne woon ci fichier électoral bi ndax dafa am ah, décision de justice léegi ñu ne décision de justice moo ko génne woon ci fichier ah. électoral décision de justice bi lan la woon ah. mooy ci coobal aji Sarr bi mu fekkewuloon ñu ne ñaari ati kaso yam ko daan moo tax ñu génne ko ci fichier bi alors que juge bi mos ta wax ne génne leen Ousmane Sonko waa léegi ñoom bu dee dañoo génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi ndax dañ koo daan ñaari ati kaso yu mu yu mu war a tëdd té ñom ñu dem japp ko té loi bi ni boo xasee japp dang koy atté wat nanguñ ko atté muy première njombe mais benen bi moy ñu ne légui dañ ko génn ci fichier électoral ndax dañ ko daat ñaari atté kasso donc juge mo décider wa ab juge décider wat ca Ziguinchor tribunal d'instance Ziguinchor non seulement dafa atté mais mom sax dafa gëna léral mbir mi parce que na ngeen neenal radiation Ousmane Sonko bonam na ngeen ko dugalat ci biir fichier électoral malgré lool wa DG e daan ñom duñu def lool parce que

tey ñu gis ne tey Sénat mi nga xam ne moo élection yi dafa jot requête avocat Ousmane Sonko yi mu ne léegi comme jot na requête bi da koy nan ko jox temps mu àtte mu jël temps ñoom douze yëpp toog réunion xool xam Ousmane Sonko dañ koy jaay doole mu ne léegi nanu na DG jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage mais malgré ça le directeur général des élections Thiendella taxaw ne loolu du ko def ànd ak ay directeurs yi nga xam ñoo ànd ak moom loolu lañ ciy jàngate ñun mooy kon nous sommes dans une situation de voie de fait mooy jaay doole président Macky Sall day jaay doole taxaw ne Ousmane Sonko du fi nekk candidat parce que bu demee nekk candidat day gagné loolu leer na ñëpp maanaam sénégalais yëpp la leer yi nekk fii ak yi nekk bitim réew que Ousmane Sonko moom la senegale yi bëgg dénk seen réew a partir de 2024 Macky Sall benn nit bu ànd ak ay tappalekat ñu taxaw ni kenn du fi baye Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que su nekkee candidat day gagné. kon sen combat ko combat politique lan lay doon. ñun suite combat bi am nañu réunion ñun wa la Lacoste parce que dañ doon xaar tay lan moy décision bi am si mom le président euh mom la euh, directeur général des élections di décider par rapport ak fiche de parrainage Ousmane Sonko parce que Macky Sall xam na ni conseil constitutionnel bu Ousmane Sonko jëlé ay fiche de parrainage am.

ñun ñu jox sunu sañ-sañ ak sunu man-man tànn président Macky Sall 2012 pour mu jiite réew mi mu tas yaakaaru yi ba xale yi dem di deewi ci géej mu tas yaakaaru yi ba sénégalais boo gis xolam dafa jeex ñëpp sëngéem ñu gis ab leader boo xam ne li mu leen wax doy na leen ñu bëgg ko dénk seen réew président Macky Sall ànd ak ay occidentaux ànd ak la France et les ñu nekk ci ginnaawam di ko dooleel ne ko Ousmane Sonko bu jëlee réew mi musiba la ci ñun. ndaxte ni ñuy sàcce seen pétrole ak seen gaz ak seen zircon dootul mën a nekk ni ñuy doole seen waa réew dootul mën a nekk ni ñuy doole di tibb seen alal di ko yóbbu ngeen di gën a ndóol ñun ñuy gën a développé loolu dootul mën a kon fexe leen ba baare goos bi bu goos bi jël réew mi parce que ko dana doon njariñ pour sénégalais yi waaye bu ko jëlee du doon njëriñ pour ñun européens waa léegi nag ñun sénégalais yi ci ñoom la des li ñu wax mooy sénégalais yi ci ñoom la des su sénégalais yi seetaanee